أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه شبير الدوان والتمكين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bokki jullit yi bokki taalib yi asalaamaaleykum noo ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk fu mu nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm te di leen balu xaq tey balu xaq ñëpp tey ñaan yàlla mboole ñu jéggal te defal ko jullit yi ci àddina bépp rawatina yi nga xam ne nag ñoo nekk ci biir Sénégal rawatina taalibi Cheikhul Khadim di santaat yàlla bu baax di julli Seydina Muhammad di sant Cheikh Amadou Bamba mi ñu booleeg yonente bi sallallahu di ñaanal xalifaam bii fi nekk muy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ba lam yéenee la géer sëñ Touba njëkk muy toog xilaafa ànd kook ay waajuram ak i magam ba xilaafa gi ñëw ci moom te yàlla na ko yàlla boole lépp defal ko ko ba mu matal ko ba teg ci bëtam ànd kook njabootu Serigne Touba gi ak Cheikh Serigne Touba gépp di ñaanal sëñ Sidi Mokhtar même fi wutu yàlla dolli ay leeram di ñaanit sëñ Baara moom fa wutu yàlla dolli leeram ba ci Cheikh Mamadou Moustapha al Karim di fas yéene ñëwaat nag ci tomb bu am solo boo xam ne tomb sant la am na tàmbali waaye amutub yamukaay ci sëñ Touba ci taalibe bi yi nga xam ne wax dëgg yàlla da ci am ay kuréel yu yum tànnal boppam teg leen fii ñu ne ci dëkk bi di xëy ci li mu santaane ak di ko digle saa su nekk te mooy alxuraan alxuraan ji nag buñ ko waxee da ngay mën a tudd daara yi daara yi nga xam ne ñu ngi ci biir Touba di jàngale alxuraan boole kook seen i coono ak seen i ak néewal doole gi ñu leen di néewal doole te borom bi doole di leen ko teg ñuy jànkoonteeg loola ba mën ko dugal ci boppi nit ñi yàlla na leen seen suñu borom aar ni mu aare alxuraan aare leen ni mu aare Kaaba gee ni mu aare Jumaay Tuubaa ji ni mu aare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ngeen ci bëgg lépp yàlla na ko yàlla def moom mi nga xam ne mooy borom wax ju tedd jooju. mu mel ne nag tey kon bu ñuy wax sant googu ci daara yi danañ ciy jiital ay nit. gannaaw ba nga xamee ne kii nga xam ne moom dafa bokk ci rabita bi bu fekkee jiitewu ko it muy sañ xaali jaxate te xam ñëpp xam ne nituk alxuraan la ndax doomi alxuraan la sax laa mën a wax ndax famille bépp ci alxuraan lañ lañ lañ cosaanoo la ko dale ci bay ma du as sa jaxate ba ñëw ci sëñ am jaxate ba ñëw ci sëñ bàyyi seex jaxate ba ñëw ci moom boo toppee seen cosaan ba ñoo gimmee te xàmmee rek ci loolu lañ ma sa nekk moo tax kon liñ doon wax naan alifun noska wal xibaadatu wal xilwatu tifla wax ak sànnu jaba dafa mel ne sëñ xaari jaxate moom loolu gaar na ko bëggul dara bu jëmul fennit lam bëgg dafa jëm daal mooy alxuraan moo tax mu samp daara ci këram di jàngale boole koog nag ci ñuy saytu alxuraan ci wurtu daara yi ba lépp lu gis lu koy ruuru du ca tàyyi ca sonn day ñëw ba ci xalifa général bi mu mu ànd ak kuréel gam àndal ñu ñëw gaaral ko loola ba loola saafara gis nañ na def na ko bu dul benn du ñaar ba bii nga xam ne mooy siyaar spécial bii ñu doon def sëñ Muntaxa bu yeggul te daara yi alxuraan yépp bu dem doon ko siyaare ji gis nañ ne ca la fésale kàddu yi nga xamante ni si bokk na ci li nga xam ne taataan nañ ko ci te danañ ko indiwaat sëriñ bi nag ca lool rek la mas a nekk te ci moom la nekkul ba tax na sax daana ko wax ne képp ku ma desal ci sama dëkk bii di ma jàngale alxuraan lépp loo bëgg danaa la fa fekk fajal la ko ba doo laatu ci dara képp ku ko deful nag dana la def nga mel ne naarub gànnaar lépp loo soxlaate dangay dugg ci àll bi wutal ko sa bopp te jàngalekat alxuraan yi kat gis nañ na tumuranke nañ lool gis nañ ne oto yu rafet yi nit ñi war ñoom waruñu ci ndax ak ay coono duñ tëdd fu baax duñ toog fu baax duñ lekk lu baax waaye lépp rek ñu doone ko ci sëñ Tuubaa ni fekkoon alxuraan ak na alxuraan meloon ak ña ko doon jàng coono yam ci jànkonteel nag mooy barkeelu gi nga xam ne ñoom jàngalekati alxuraan yi ñu ngi ci biir Touba te kenn deful lu gën li ñuy defal sëñ Touba te mooy toog fexe ba jël ay ndaw dugal baate alxuraan ci ñoom te xooluñu ca lenn lu dul suñ borom ndax jafe-jafe yañ ciy dund metti na yàgg na te teewul ñu ngi continuer di ko def te ñu bari génne nañ ci seen daara kon loolu yaakaar naa ne jaamu yàlla gu ko gën a moom jàpp mu ne am na liggéeyal sëñ Touba bu ko gën a rëy jàpp mu ne am na ci mboolem daara yi nga xam ne nag ñu ngi ci biir Touba ak yi wër dëkk sëñ Touba yépp te taalibe sëñ Touba de ko fa di ko jàngale daara nag yàgg am problème lool ci biir Sénégal ndax depuis ci jamono yi colonial ya muy bureau bi nga xam ne 1851 jamono jooje bi Faidherbe bu nekkoon xam nga tëraloon na benn décret boo xam ne daf ñu doon fay alxuraan ngir yëkkati seenum jàng mu jëm kaw yaakaar naa bañ ca tegaatee am at wala ca diwén sa la Seexul Xadim doo gane jamono bu ñu xoolee téere sëñ Cheikh Mbacke bi nga xam ne chaque année dañ ci def benn journal ngir di ci fàttali ko ay jaar-jaaram ak di ci fàttali jaar-jaar yi mag ñi ñu tudde ko Adaya Xal Fadail am na ci benn journal bu ci génnoon boo xam ne lam doon wax mooy jaar-jaar ya mag ña jaaroon ca njëlbeenug l'islam muy jamono ji fi tubaab yi nekkee te booba daara yi melagul woon nii wala boog boobu amaguñu woon indépendance tubaab yi fi nekkoon. dañoo bañoon jàngum alxuraan ba tax ñu daan wër sëriñi daara yi di leen interdit ñuy jàngale alxuraan boole kook di leen interdit ñuy ub seen daara yi waaye sëriñ si ñoom yàlla jaral leen te ku ànd ak yàlla ku nekk ku la mën a fexeel it yàgg yàgg day féete suuf te alxuraan moo gën a kawe lépp sëriñ soo sa nekk ca loola ba tubaab yi demee ba xam ne mën a luñu leen dara ci njàngum alxuraan man lañ leen wax nag ne leen ku fi sompati daara di dajale nit na nga ñëw ci ñun bañ defal la autorisation buñ la deful autorisation duutoo am droit samp daara ci biir Sénégal loolu lañ def ca journal ba léegi nag autorisation bi bu ñu la ko defalee danañ ñu autorisé jamono bu ñu bëggee contrôler si daara ji ñëw xool ko te duñ ci tàggu kenn waaye loola bañ ko waxee sëriñ si taxaw bañ wéeru ci yàlla rek wakkilu ci yàlla la ñuy néew néew doole ci saahir teewul ñu mottale ko yàlla mi nga xam ne moo ëpp doole ñëpp ba loola amee it ñu dem ba xam ne nag léegi kon lii mënaluñ leen ci dara lañ daal di wax nag ñoom tubaab yi na kon yaa koy jàng alxuraan wala arab moom bu ko kenn reconnaître dutu liggéey du liggéey ci administration dutu ci liggéey ci dara ca loola la fi tubaab yi bàyyi woon ba bañ fi jógee loola lañ fi bàyyi te loola moo dellusiwaat ci jamono jii ñu toll ndax gis nañ ne kat islam waxtu jot bunt bu ne ña ngi ko fay fëgg di ko fa xeex bunt bu ne ña ngi koy fëgg di ko xeex moo tax réew mi du jóg ci benn jafe-jafe réew mi moom benn jafe-jafe fi jóg ba àddinay tukki parce que dañoo fekk ci islaay li nga xam ne ci la jullit yépp wéeru te moo aar ñu jël ko bëgg ko gannaawal bëgg koo teg ci suuf bëgg a jël seeni caaxaan ak seeni tappale bëgg koo teg ca kaw te loolu nag suñ borom du ko seetaan ndax sëñ Tuubaa ci loolu la xeex ba raw ñëpp téere suñ borom boobu ci la xeex ba raw ñëpp ndax jiitu sëñ Tuubaa di ñëw kat gis ngeen ne alxuraan fa nekkoon ña ko doon jàng dañ ko daan fobee daan ko taaxuraane daan ci labat daan ci def lu nekk daan daan ko laal ci sobe te dawuñu ko jàng ngir yàlla dañ ko doon jàng ngir bëgg aw tur ngir jàng ngir bëgg a falu yooyu moo tax mu tumuranke woon ci réew mi ba dañ ko daan wutal sax ay yëre yi sol yoo xam ne mooy mandargaal ne forom bu ñu xam ne yow mii kat yaay xafisub alxuraan bi gën a màgg ci kaw àddina comme ni mbëri làmb yi def dañ daan jël alxuraan daan ko daan ko gegenoo dañ daan jël alxuraan daan jël seeni tànk teg ci buñ ko mosaan bind dawuñu soleeg sobe day firle ji nag mooy alxuraan jooju am na benn bis wala ci jamono joojee ña ko daan jëfandikoo buñ masaan fal buurub àddina dañuy fekk xale xalem njagamaar bu tuuragul deret ñu bind kanamam gi bind gannaaw gi summi ko ba mu set buñ noppee gasum pax suul ko ci ca noonee lañu daan fale buurub àddina buñ masaan dem di labati dañuy wut aw gubu dugub ak ab yax jox nit ne ko demal yëtal ma ko njagamaar sàngam ne ko ngoonee fi lay fanansi gubu dugub bi li muy tekki mooy laax laa bëgg a añe yax bi li muy tekki mooy reer yàpp laa bëgg a reere su ko defee bu ñëwee ba ñëpp toog mu jël ab pooj ab pooju ndax jël boppam teg ci jël kaamilu alxuraan di bind wala mu di ko jàng gis nañ ne jamono jooju it ku masaan jàng alxuraan ba bind kaamil boo koy toppalu da ngay dañ lay dem ba ci dëkk boobu dañ naan la ki dàq jàng alxuraan mi ngi ci kër sàngam nga ñëw dem fa moom au lieu mu gàggante la te yàlla tax soo demee su ca gisee baat bu mu la war a gàgganti du ko def day woote ca pénc ma takkalu rajo ya indi sabar ya góor ak jigéen ña jaxasoo su ko defee ñuy tëgg naan rëppeelu nga del dëkke nafar mbaa ngay bind geestu del bind geestu mbaa ngay dëkke nafar loolu nag ci la alxuraan gedde woon ba dem ci ruq nag toog wét fa moom képp di jooy ba suñu borom dogal sëriñ Tuubaa fekk ko fa laaj ko loolu fay tax toog mu ne ko daal damaa layoog ñi ma jàng ba mokkal ma di ma foyee danaa leen yey bu ëllëgee naa leen tabal sabara sëñ bi nag ne ko dem ma def la na la sama borom def ba mu dikkee nag xam nga la daal di wuti wutub lal defar ko ba mu jekk mu jël ab dorob lal ci daal di koy defar ba mu jekk mu jël parfum miski sikki def ci ñu defe ne da ciy tëdd mu daal di jël téereb suñ borom bi daal di teg ci kaw toog ci suuf boole koog di bind naan yaa kitaaban karimi anta habibi wa xadili wa kuntu xabla tatabi bii loolu di ko wax ba àgg ci minal xaq jaa al xaqu lil xaq fi sax bi ci la alxuraan ne bëreet kontaan bëgg lool ànd ak moom nag ne ko nañ dem ma présenté la sama borom ñu dem ma présenté ko boromam borom daal di woo malaayka yi ñëpp laaj leen ko moom alxuraan ñu ne ko yow mu ne de naa ko ahmadu mii laaj alxuraan ko ko moom mu ne ko yow mu ne jox naa ko ahmadu laaj al sëñ tubaa ku moom alxuraan mu ne ko yow mu ne ko jox naa la ko moo tax mu ne malakani alxuraan tamlikan yadum bi an na nu xillin bi an na ni xillun wa xibbun wa xadim loolu nekk nag lu am solo yoo xam ne si sëñ Tuubaa foofu la fekk alxuraan nga xam ne tey réew bi bu ñu mënee jëfandikoo alxuraan ba alxuraan di dem ba Malaisie di di gagné ah yaakaar naa ne jàpp naa ne bu dul woon mbóot moomee fi sëñ Tuubaa téye woon jàpp naa ne alxuraan moom kon ñoo yeneen langue yi dong ñoo ci raw waaye daaw bi ñu demee gis nga ne premier rek ba troisième ay sénégalais ko jël ren ñoo ñoo jël ay quatrième te ñaar ñi ko jël ñëpp ñi ngi dëkkaat ci biir Sénégal te waa ahlu tasawuf ñoom ñoo leen jàngal loolee ba mu ñëwee victoire nga xam ne ab raaya la bu mag dafa mel ne réew mi dara xewu fii dañ koo ñàkkal fayda lool amuñu ci soxla jéemuñu ci dara ndax complexe sax lañ ko def te gis nañ ne financé wuñ ci daara yi dara defaluñ leen budget dimbaluñ leen ci dund dimbalewuñ leen ci santé te lu ñaaw lu njëkkati daal di xëpp sëriñi daara yooyu loola nag bu dem ba dellusiwaat ñu jaalale ko ci ab luwaa ba wote ko bëgg a ñëw feddliwaat ko bëgg ko róoraat comme na ko feddar ba defoon loolu moo tax waa rabita bii nag am fulla ak fayda dajaloo boole seen bëgg-bëgg ak seen i xalaat dem ba ci sëñ Muntaxa Mbàkke yëgal ko ko ba mu ne bakkanam la ci gara te la ko jiitu demoon nañ ci sëñ Baara dem ci sëñ Sidi Moxtaar waaye ku fi mas a jamonanteeg ñoom ñoom ñoo sobe alxuraan ñoom sëñ Xaali Jaxate ñoom ñii ñoo sobe alxuraan ndax buñ sàgganoon def na seen i morom toog fañ toog nekk ci seen bopp di bànneexu kat alxuraan mën naa sànkuwaat te bu boobaa réew mi rek ñoo ci loru ndax lépp luñ mës a bëgg bu jullit yi demee ba toll ci yenn jafe-jafe yi ci alxuraan jooju donc ci la ñuy jaarawaat ba mën a delluwaat ci seen situation te la preuve gis nga ko xalifa bu fi mas a toog lu ko yàlla wan lu mu nit ñi bu ca amee njàqare day daal di woote ca pénc ma ko defee ñëpp dajaloo fa jàng suñu borom daal fi wàccee jamono ku yorul yooyu bët nag war ngaa fonk alxuraan ndax jamono ji kenn saxu fi kon nag di wii ci loxo yi waawi koo xamee ni ni ab noonub lislaam la ah wax dëgg yàlla nga ne ab jullit nga xamoo dara ci ju lislaam mënoo cee jàng dara xamoo farata xamewoo sunna te la la yitteel ci ñoom ci sa wàllug àddina jàng nga ko ba xam ko ñu yëkkati seen jàng moom nag bëgg a ñëw suufeel alxuraan moo tax lépp loo xam ne ñu ngi koy jogante di ko wut ci àddina Sénégal la ciy gën a des gannaaw di su ko am bu mukk ndax njàngum alxuraan mi nga xam ne dañ ko suufeel jëreelu leen dara jëralu leen may dara te ku jaaxle ci nga koy wuti te njàng mii nga gis ne teg ñi ngi koy yëkkati ñu ba tudde ko euh, enseignement supérieur bi nga xam ne wax nañ ne mooy njàng mi gën a kawe wutal nañ ko ku koy saytu wutal leen ay barab wutal leen ak col wutal leen lu ñuy lekk waaye gis nga ko ci ay jafe-jafe ak lay dëkk te duñ ci réussir te da gis ko jàng ba am diplôme am te du am fu mu dugg gis ñoo xam ne si buñ duggee fa ñuy dugg maanaam duñ fa def lu leen lislaam sant kon nag loolu wala xin seet bi yàlla na ci yàlla musal tànk nag Sénégal ñi ngi sax ci lii daanaka ñiy góorgóorlu ci lislaam rek la suñ borom di sowe waaye ku góorgóorluwul ci lislaam it na la woon da ngay sonal sa bopp liñ man nag ci jéem a xeex lépp ñu ngi koy xeex ay alxuraan moom suñ borom a ko téyel boppam képp ku gàttu xelit ba àddina jaral la nga dem di ànd ak noonu bu lislaam ne dama koy jéem a sofeel wala dama koy jéem a fay yaa ciy fay yaay yi te yaay yaay yaay yaay faatu waaye yooyu lay gaar lépp du gaar alxuraan te du gaar it ñu ko fi yàlla def ñi ko fi yàlla tegit ñi ngi góorgóor lañ man ndax gis nga ko fi mu ne lépp lu ñuy bind ci lu bon jàngalekatam alxuraan ci lañ koy ci lañ koy askane bañ nañ ko ba ñi nga xam ne ñoom la ñuy bind loolu di leen ko jox muy li ñuy wax revue de presse ñeme nañoo dugg ci sëriñub daara attaqué ko wax ko lu luñ ko bëgg a wax waaye ñeme ko attaqué ministre ñeme wuñ ko attaqué avocat ñeme wuñ ko attaqué ab chef d'état loolu nag kon dey wane ne ñoom jàpp nañ ne dominé nañ waaye nag yàlla ci wàllu boppam moom képp koo xam ne yaa ngi liwaat ak moom na nga xam ne yaa ngi indil sa bopp jafe boo xam ne da nga torox àddina da nga torox àllaxira kon nag waaraa bi moom ñu ngi leen di gërëm ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi yor ay daara di sonn lool di jàngale te yàlla tax te lu ñoo soli yëree mënuñ amuñu oto amuñu luñ tëdd fu baax waaye alxuraan jaral leen ko waaye alxuraan moomee nag dana leen yëkkati ba àddina sépp teg leen bët defal leen dimbalal àddina ak alaxira di ñaanal nag ñi fi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci loolu yàlla na leen suñ borom jàppale yàlla na leen suñ borom aar yàlla na leen suñ borom dimbali comme ni mu woon yonent bi comme ni mu dimbalee woon Serigne Touba comme ni mu dimbalee woon ni mu dimbalee alxuraan ba nga xam ne moom kenn mënalu ko dara te ku bëgg sooywu ci nga jëm si yàlla na yàlla xirtal ñëpp ci yàlla yàlla dimbali ñëpp yàlla na yàlla aar alxuraan aar ñi koy jàng aar ñi nga xamee ne it ñoo koy sàmm te xam ne alxuraan moom suñ borom jox na ko sëñ Tuubaa ku mu neex ak ku mu ndax liy dox lépp ci réew mi ci loxol sëñ Tuubaa la ko teg moo tax mu ne simaamul wara asri la dallahi fii yaddi loola nag yaakaar naa ne ku neexul yàpp naa ne moo nga contre jant bi ñoo yam boo duggee ci sam néeg sàngu it da nga tàng jëpp te dana la wër na jant bi la tàngal donte gisoo ko kon nag mbirum sëñ Tuubaa ngoog saxaar la guy dem ku bugg dugg mu yóbbaale la ku duggul nag soo ko baaree dana la jaar ci sa kaw jàll te du teemu dem wala du teemu àgg fa jëm kon ñii nga xam ne ñooy xaali te ñoom ñii ak sëti sëñ Tuubaa yu baax yii ñu àndal ah ñooñu day jàpp naa ne tey jii bu dëkk bi dee dox ci jàmm ba dëgg ni ñooñu ci eh, kiiraangi sëñ Tuubaa googee wala ndénkaani sëñ Tuubaa ca lañ sax kon nag ku bokk ak ñoom ca wet ga ñu féete te defoo la ñu def na nga xam ne yaa nga ca geneen wet ga rek yaa nga ca saytaane fépp fu ñu tuddee saytaane nag tudd la waaye fu ñu tuddee lu baax it teggi la waaye ñii it fépp fu ñu tuddee seytaane teggi leen waaye fu ñu tuddee lu baax tudd leen loolu nag àtteel suñu borom la moom moo koy àtteel boppam ci jamono loo xam ne si moom bis dana ñëw da ngaa am bis boo dul bokk ak kenn sa àddina da du jàkk sa àllaaxira moo koy yées yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla gën a sàmm ñi nekk ci réew mi ñëpp xalifa yi ci biir réew mi yëpp ñi ci jub ñëpp yàlla leen yàlla jub gën a dimbali ñi nga xam ne ay jullit lañ yoo xam ne si melu ñu lañ war a mel yàlla na leen yàlla jubbante buñ ta jub nag yàlla na leen yàlla daal di natt fa saasa ci barkeb Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu